なんか変わったねそこじゃなかったね何が変わった変わってないよこっちから入らんからよああ donc d u g m o n fii pardon こっちから入ってありがとうございます donc あ alors voilà mon cas est un cas だとママ先からね、用意しとったのよ、これポテトサラダやけど、はい、あのじゃがいもと玉ねぎとやから、はい、別に、うん、懐かしいな日本の食日本食ビスミラ donc il pense que c'est ma femme qui a appelé à pour dire ma, elle n'est in ennemi avant à ce point bismillah Arigato tomo. Sumimasen, arigato. Mm-hmm. Arigato. Hmm. O 塩はいいよね。うん。ごまと。はい、ありがとう。 ですねちょっと弱くなった、うん、はい火を消しあれしてうん、塩が足りんかったらまだこれ大丈夫やね、うん、ここで、パあのー、あれ懐かしね、うん、この味先生作ったほら、うん、ありがとう漬物お漬物しよったから、はい、続けてありがとうありがとうございますあ美味しい ありがとう足りなかったらこの塩みたいな、うん、はい、はいje suis un ingénieur professionnel, c'est pour cela que je peux filmer sans autant orienter la caméra. Je sais où. Je sais où finir. Sen moins ikay den waa seen biir maa tax mu jënd ko papa di mën a jokkoo ak はいはいハモグリちょっと待ってくださいね、うんうんはい、ああ了解ですはいもうちょっと下で行きますからはいわかりましたはいはいはいはいどうもセンプルだよな。こんばんは。 boo ma oowee doo ma jël simple. 今どこやどこの地下鉄やったっけえっ、ー、と難波やなくて待ち合わせの場所ああ、えー、本町本町かな11時30分でしたね、うん、バスが今17時17時42分と59分だからそこね を今送ってきてくれたんですうん、うん、いや大丈夫間に合うね42分でも間に合うねうん42分370円いいえ私持ってるからあるわいやいやちゃんとあるいえいえいえいえそれは絶対いいえいえいえいえいえ聞いたからいえいえ ちゃんと持っとかなねこれはね乗る時大変。No no no no no no no no。これねお湯入れるだけだからこうしてここに入れて器にお湯だけ入れたらおすましよかったやろ。すごいよかった。温まるでやろ。ここ入れとくね。ありがとうママ。うん。たらもうまたできるから。ありがとう。いつもありがとう。寒いから。遅れてきてすみません。いいのよ。Donc vraiment c'est ma famille quoi. Je suis choyé, je suis sax dañ ma koy jox paas. Ah, ticket daay ne. <laughs> sama poste. Irana Katsana honte ne arigato. vraiment mënuma leen fay ko. yële yëpp man maa ko moom li muy defar noonu tout ce qu'elle fait là c'est pour moi là-bas mu dul le transport ah yeyeeye honto ne o ressude anannawa koti kocci des mama でも一番嬉しかったのはお友達とお話できてみんな笑ってくれてるの本当に心もすごい私は嬉しいわなあ先生お友達笑ってくれてもう嬉しいわそれ最高それ最高でしたわそれが最高よ本当にお互いに良かったねあっちもいいこっちもいいし本当に良かったですそれが一番良かったね一番良かったそれもうみんなみんなが良かった先生が言おうとしてやってるからお友達にも、うん on ɗo mata asuba no ousmane cettuɗo cettuɗo suba ɓe tibbu kar joko hunde kaji sina cettu ima a yerani kam sina ha caka ja den mane nden er mata sana ndemo toma todimasta aɗa ato ja kiyosketena naɗo ɓe ko yewde hayo kadisani yakimotti やっても知らないけど。で、あんな、あっちもこっちも用事してあげよるもんやからな。だから、そこが引っ越しはんねんな。うん、引っ越しはんねん。会ってないな、あの人、おっちゃん。なんか、その人も合わしたかったんやけど、うん、合わしたかったんやけど、でも、あるよ。 あれからいだけどありがとう C'est un poussin sérieux. On va pas se revoir parce que je vais partir à la station avec ma maman. Donc, euh, il y a un moment que je lui ai dit, il faut revenir vite. Hein. Je lui ai dit que tu es jalouse là. Elle me dit non. Fais pas ça. Quand il parle avec elle, il ne va pas me suivre. Juste quoi. Il m'a fait soumettre, il m'a sacrifié, il m'a sacrifié. Sen seete mata awana na kuna mamade iko karibu. Maa caan nani yatte ageta hata kino togi. Maa caan nani nani ste ageta. Ah Maa caan tanjobi no tanjobi. Ah ah ちゃんが昨日ですよ。そう。で、まいちゃんの時は。 食べに連れて行ってそうですね二十歳の時は二十歳の時はあのー、家で何したかなあの時はカニカニしてやったかなもうカニかく何でもカニでも食べるから、うん、でもお金でしたらいかんねやけどやっぱいるからなあの子もなバイトであちこちだからお金でもごめんねってな、うん、大事にして貯金しときますって。 くれるあの子あんな無駄遣いも何もしないそうそう言っとったねうん言ったらしいよかったねいい子ですね今注射な車の免許取ろうもて必死でしょうんだから絶対じいちゃんの車うんちょっとあの子には大きいからな、うん、小さいうん小さいのね彼氏は今いないいるいや知らんいるその話してない、うん ダンスしてるからあれじゃない、うん、もう可愛いからねすぐできてるじゃん、うん、そうそうそうそう付き合っていたら付き合ってあげようみたいなちょっとお茶飲みぐらいな、うん、孫孫好きやろママ孫見たいやろ孫の顔いつか結婚したいだから知らんとこまでそうですね Hmm. Mama Gocho Sandesta. Arigato. Allez, à bientôt. alors euh, donc man ma su ma nekkee si réew mi nii mënuma def lu dul ay baara ñëndee alors euh, ay euh, liggéey yoo xamante ne nii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 いいママ座ってくださいいいのいいの私若いからあなたも年やもうまあまあゲットはもうもう晴れるこれまでもとこはもうもう <laughs> elle me demande de, de s'asseoir quoi elle est plus jeune que moi quoi ah, donc euh, Sensei et ses amis je suis chez lui comme ça voilà Sensei il est là voilà maman elle est là voilà les amis de maman <laughs> voilà と送ってね、うん、お母さんが「わあいいね」って言われて言うねする出るなあれはセネガルってこの辺にあってセネガルですああよかですよ西アフリカ東の方が草原海岸フランスの領土

電気のあれかいね。そう言れたらそうだわ。持ってようだけどな。でもこれいいね、このサイズがね。なあ、なんと、ランマがついとるで、これも珍しいなと思って。なあ。希少価値が。希少価値あんで。これ、あそこ行って、あの、あの、京都の当時行ってさ、売ったら絶対に売れるで。ね。どうぞどうぞ。私は、あ、あ、 우리 집에 와 보고 살아갔나? 네. 뭐, 뭐, 뭐, 아래가 이게 야바라카이 까라라. 나, 좀 웃겼다. 아, 그래서 그런 건가? 뭐, 뭐, 뭐. không hề đó không hề quá chín luôn này 이만이 왔을 때 宮宮さんしか枯れてまうよ。はい。残りMon problème à l'ordre du jour. Donc, les Japonais discutent sur mon cas. Il leur tout le monde est triste là.そんなもん言うたってここ中でいっぱいおるやないかいねあのねややこしいあの姉ちゃんからフィリピンの姉ちゃんとかいっぱいおるやないかいねだから 全人を捕まえて何やるかね父ちゃんが好きなあのジュースがいったら好きなことないからねジュジュースをよく言ってる言ってないねどんなジュースそういうのがいっぱいあるねフィリピンの連中女の子がいっぱいあるね行かないなそこもう行かない